salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalo àq tey baal àq ñëpp dellu siwaat seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen sit bi ñuy wax yi TV dinaa moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 Minam Deko euh, mbokk mbokki tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci wax yoo xam ne dañ koo dégg ñu koy wax di ko jëmale ci njiitu réew mi muy président Macky Sall wax jooju nag en tant que euh, président man rafetluwuma nit ku jëmale kàddu yooyu ci moom kàddu yooyu ci moom rawatina kàddu yooyu ñu jëmale ko ci moom ci télévision boo xamante ni ñu bari ñu ngi koy seetaan euh, an njiitu réew li ko yàlla defal ci teraanga ak li ko sunu constitution may wala sunuy euh, loi may mooy kenn waru koo woo sax te waxoo ne président Macky sàll ndax réew mi ñoo ko tëral wane ne mooy sunu président ñu war koo respecté war koo jàppale jàpp ne tey président Macky sàll bu amoon ak beneen président aw dig sax moom lañ war a jàppale nit ñi tamit xam ko ci wàllu wax dëgg yàlla bu fekkee wàllu yar la wàllu teggin wàllu wax joo xamante ni jukki la daanaka mësuñu koo dégg ci moom lu bari donte loolu ku nekk jaar nga ci wax wax joo xamante ni yow ci sa bopp sax yaa ngi toog di rëccu wax jooju waaye en tànk nga toog mën a wax président nangam loolu moom vraiment rafetlu barki démb ci télé wal fajjir bi euh, damaa dégg ñaar ñu fa wax ku ne wax Abdou xaax ak euh, Pape Makhtar Diallo ak ña fa teegoon ñëpp ñu wax ne <coughs> baat bi sax dama bëgg mu leer waaye man wax di yàlla ñemewu ma koo wax en tant que président Macky Sall saay-saay la ndax moo fi waxoon nàngam xam ngeen ne lu mel noonu wayoon nañ ko fi am nañu ko doon woy waaye baat yooyu ba jonni tey benn baat bu ci rafet amul sa président nga koy woy di ko wax waay ñaaw joo joo xamante ni ci aaday Sénégal xam na ne loolu daanaka ñàkk nit teggin la waaye du koo jox war ma di ko wax ndax loo xamante ni yow boo nattoon wax jooju doo ko wax sa waajur doo ko wax sa waajuru góor doo ko wax sa waajuru jigéen doo ko wax sa sa doo ko wax sa nijaay doo ko wax kenn koo respecté te koy respecté rek ci Sénégal bokk na ci respect bi war a jiitu bokk na ci bu dee respect respect nii rek ci réew mi nii li luwaay yi tëral mag sàll mooy ki ki respect bi nu war a njëkk a jox moom moom la ndax koo xamante ni tey bu yore woon otoom di jàll oto yëpp dañ leen di baare loolu ko may du juddoom du santam du askanam dara waaye sénégalais yi ñoo tëral luwaa boobu ne képp ku nekk sunu njiitu réew nañ ko bàyyi ndax daf nuy liggéeyal kon waruñu ko tardel ci benn côté buy dem ñëpp dañoo war a taxaw waaw bu taxawee ñëpp dañoo war a toog bu toogee daanaka ñëpp dañoo war a tëdd loolu ñu maye ko fi ci luwaa yi bu fekkee ne circulation bi daa xat wala muy dikk ñëpp dañuy wàcc droite may ko mu jàll lu ko waral mooy dafa nekk ci askan wi dafa nekk ci askan benn yor na benn malaat boo xamante ni daf ko war a yóbbu walla mu war a dem sawe ji ay nit ñoo xamante ni benn lakk la wala accident la wala dara bu dee sunu armée bi bu dee ñoom ñooy jàll ñoom it ñu may leen ñu jàll ba sens interdit yi ñuy wax sax am na ci jamono yoo xam mën na noo jaar ci sens interdit yi ndax parce que lu ko waral mooy li ñuy dem di ko sawe ji loolu nag ginnaaw yow amoo ko da ngaa war a jox sa njiitu réew respect sa njiitu réew respect waaye taxaw ci télévision mën a saaga mën nag lu caage na dama faral Macky Sall ngir di ko ci di ko defal benn campagne wala di ko défense déedéet. maanaam jëmmi constitution bi wala jëmmi loi bi nu te moom laay jéem a aar bëgguma ko ko jalgati bëgguma koo jalgati bëgguma ko ko jalgati euh, lii nag vraiment dafa bokk ci loo xamante ni en tant que journaliste boo amee foo farit wax ji man ngaa wax li ngay wax mu leer ñëpp dégg doo ko utiliser baat yooyu baatu dafa saay saay jëf ji jëf na kenn laa gis mu toog am na ko fa nekkoon ca débat ba daal di jóg taxaw ne loolu waru leen koo wax en tant que président ña dirisé woon émission ba sax jéemu na ko yu mel nii nag moo tax télévision yi toujours ñuy am ay problème ñu naa dañ leen singali dañ leen def nangam loo xam ne bu ko waxoon jëmale ko ci sa baay wala mu jëmale ko sa yaay wala mu jëmale ko sa kilifa da nga da nga da ñu wax ko en tant que njiitu réew réagiroo defoo dara bàyyi ko mu wax li mu bëgg a wax lépp nga toog na cell loolu jàpp naa ne jaaruwul moo tax gone yi niy jox ay émission wala di leen jox télévision yi war nañ leen a tàggal ci ñor ak xam lépp loo xam ne dafa mën a taal wala dafa mën a yëngal fitna ñu di ko kii te télé boobu du ciblé leen du kii leen waaye nag yu mel noonu bari na fa lool bari na fa lool ndax barki démb bi ñuy wax fii ci affaire chrétien yi di dugg fa Lamine fa lañ ko waxee leneen leneen fa lañ ko waxee yu mel noonu nag dañ ko war a di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax dañ ko war a bàyyi xel. Cheikh Omar jaañ mi bi muy wax fii ba tey li ko yóbbi yóbbi ko foofu ca télé boobu la ko waxee woon. yu mel noonu dana war kuy ñuy wax ñu artu la xam ne règlement yi ak kii ndax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ku ma soon a dikk ci moom ne ko dama bëggoon nga may ma affaire njaaloo ndax loolu maa neex lool maanaam defal ko benn rusxa boo xamante ni da koy may daal jigéen ju bëgg a jaxasool jaxasool yonante bi bàyyi ko ba mu wax ba noppi mu ne ko ndax bëgg nga ko def sa yaay mu ne ko déedéet mu ne ko ndax bëgg nga ko def sa sa sa sa sa grande ser mu ne ko déedéet mu ne ndax bëgg nga ko def sa sa tante mu ne ko déedéet mu ne ko nit ñi koo gis jigéen joo gis tante yi nit la yaayi nit la sëru nit la ni ko bañee ci sa ñooñu leen ko bañee kon wax ju ñaaw ju mel noonu ku koy wax su tànk njiitu réew de yàlla waroo ko bu dul woon ci ci bu doon beneen ki sax ndax moom moomu dafa am ay doom doomam yi seetaan télé ba nga dégg nga wax loolu seen waajur en tant que koo xam njiitu réew la ba noppi mën koo faj yow ki ngay wax bu fekkee da wax loolu kooku ngay wax moom mën naa faj li te lu mel nii amicole Collé yaakaar naa du ngeen fàtte que daan Ami Collé te daan woy lu mel nii ay audio yu mu waxoon ci groupe nu pour naa tëdd na ci kaso tëdd na ci kaso te lu mel nii la waxoon lu mel nii textitis Macky Sall nangam la da ngeen koo xamut waaye nag baat yi ñu utiliser sax ci télé bi loolu la utiliser woon baat yii la te en tant que jigéen la woon def loo xam ne fa mu ko doon waxee waxu ko public da ko waxoon ci benn ay nit rocceeku génn audio yooyu audio yooyu ñeneen jot yu mel nii nag dañ koy moytuloo sunu bopp di ko moytuloo ñeneen ñu mën di doon du caaga nag dañuy wax ngir bëgg leen ci signaler wala dara ndax wax jun jël seen responsabilité la junu jël seen responsabilité am na ñuy saaga président di wax wax ju ñaaw loolu yàgg na fi waaye nag jàpp naa ne foofu fan koy waxee ay ay ay béréb la yoo xam ku fa duggul jéem ko faa gëstu doo ki donte foofu waruñu ko faa wax waaye fu ñu ko mën a waxee rek waaye rawatina tele boo xam dañ laa jox autorisation may la te tëdd tëgg la ci ay règlement ngay wax sunu président lii loolu moom dañ koy ñaawlu moom dañ koy ñaawlu moom lu ko nit mën a waxal man ngaa wax yeneen yoo xamante ni loo xamante nii daanaka moom la concerné moom la concerné ndax parce que man li ma xam ak analyse li ma mën a ki mooy mag Sall bi muy wax ne président Macky Sall bi muy wax ne mandat bi daf koy def cinq da koy wàññi boobu moom li ma wér wóor ma dëgg la ci moom dëgg la gu wér a wér a wér ci moom luwaa bi moo dem ba ne ko loolu mënta nekk en tant que kuy sàmm luwaa kay waroo jalgati luwaa leneen lu mu mën doon léegi leen koy xaaraate moo wax ne troisième mandat du amati loolu nan ko ci xaar bu boobaat dañuy wax ne ko lii nga def Ablaye Wade bi mu fi waxee ne Euh, moo waxoon pour pourtant dañoo waxoon ne lan ko waxoon dañ ne moo waxoon wàqet loolu mën nañ koo wax mën nañ ne moom it président waxoon na fi lii wàqet waxee en tant que nag baat yu ñaaw yoo xam bëggoo ku la ko wax ku la ko doon wax dina naqari sa yaay dina naqari sa doom dana naqari sa kii li nga amee yooyu nag ba am sañ-sañu taxaw wax ko président am na sañ-sañ yuñ ko may wala yoo xam ne réew mi may na ko mu war laa jël si ñu téye la ci te loola bu ko utiliser woon dana metti ci yow yu mel nii nañ koy moytu. wax ji buñ ko dee wax nanu seet ne njiit la yàlla moo ko jiital koo xamante ni amut fenn ci senegal kenn ak sëri këri fi diine yi ni nu amee cër ni nu màggee ni nu toll ci xol yi waaye tey téewut bu président Macky Sall doon jàll ñoom ñépp ay toog président yàlla may na ko doole joo xam bu ko neexoon ajjuma mu taxaw déclaré ne ajjuma kenn du julli te pourtant ku julliwut du am bakkaar ndax doole jooju mu am moom rek moo ko am ak julli li muy loolu bu ko defoon tamit kenn ku julli ju du tax nga am bàkkaar ndax moom moo am doole jooju kon na ni moytu wax yenn yi ku doon ab journaliste ba noppi doon koo xam ne da far da ngaa kii demal nga politique yi moo gën nga kii dëgg la nag politiciens yi baat yu ñaaw yu ñàkk teggin yëpp ñoo ko indi diw dafa day kàcceeg diw waxul dëgg day day fen ak yooyu yëpp seeni baat la yu ñuy dégg waaye en tant que njiitu réew nag moom kenn waru koo wax loolu moom tant que njiitu réew. nanu xoolaat kàddu yi ak paral yi xool fi ñu koy jëmale ak nen koy yare ak nen koy jox yàllaa ko fi teg feeg jeexalut kenn mëno du dëgg la man du caag ne dama koy défendar damay defar sunu réew laay défendar sunuy luwaay yu nu teg yooyu laay défendar waaye defaa défendaruma président Macky Sall lu mu def ak lu mu deful ndax ñoo Sénégal yi yëpp ñoo ci yem ñun ñoo ko faloon ñoo ko fal ñoo ko fi kii ba keroog mu fi jóge kon ñu ngi taxawlu fii daal di moytu la yooyu bu baax ay Abdou Karim ñoom ak Pape Matar ñoom ñi nga xam ne kàddu yi ci ñoom lan ko dégg ñu ngi leen ciy wax na kàddu yu mel ni daal nanu ko xoolaat bu baax xam ne njiitu réew la yàlla moo ko jox dara ji moo ko jox wàccuwaay woo waaw nanguwu leen euh, ñenn ñi di wax te lu mel noonu yu mel noonu parce que démb rek lan évité fii Pape Assane Assane Assane juuf mi daan saaga mi wax naa tox yàmbaa di ko wax waxin woo xamante ni ñu war bàyyi ko ci télé loolu lu garaaw a garaaw la man tox yàmbaa na xale yi tox yàmbaa waxee ko waxin woo xamante ni yooyu yu garaaw la yu garaaw a garaaw nanu régler télévision yi nanu régler nit ñi ñu xam ne nit ñi liñ soxla ay njariñ la nanu xool nit ñi ni iwiti ñi mën a indil nit ñi njariñ ñu jox leen ko nanu seet ñi ni iwite ñu am njariñ wax ñi ni wax mën a jeexital ci askan wi doon lu baax